conférence des leaders bu Benno Bokk Yaakaar àdduna ci waxtaan bi nga xam ne ni njiitu réew senegal Sénégal sëkku na ko ak yenn taskatu xabaar yi. boobu boobule dafa ànd ak sell ànd ak set ànd ak yëkkatiku ànd ak xol bu baax ànd ak yërmande ànd ak bugg séddoo ak séddale li nga xam ne xelaat na ko ñun ñu koy partagé ànd ceeg moom à 100 pour ci biile waxtaan njiitu réew mi woote dialogue ngir ñu mën a tànn bés bi nga xam ne ni moom lañuy amal jongante falum njiitu réew mi mu di ab woote bi nga xam ne ni waa coalition Benno Bokk Yaakaar dañ ko cee fas yéene jàppale. dialogue bii nga xam ne président mu ko bëgg a ubbi ñu ngi ñaan yàlla mu nekk lu am solo ci waxtaan diisoo ci jàmm ak jàmmale sutura ngir réew mi rek tax. ñuy feddali it seen kóllëre ci candidat bi nga xam ne ni moom lañ tànn ci falum jiitu réew bu atum 2024 muy Amadou Ba. premier ministre ñu ngi ñaan yàlla may doole ñu ànd ak jàmm pour ñu gunge le premier ministre Amadou Ba ci élection bi di ñëw mu gagné au leader yu fare ca coalition benn Bokk Yaakaar fas yéene taxaw temb ngir jàppale njiitu réewum Sénégal Macky Sall ci bépp dogal gi mu fas yéene jël ngir Sénégal mën a jëm ci kanam.